mbokk yi salaamaaleykum Mamadou Moustapha Mbaye Dakaractu bureau bu Touba di leen ñaanal jàmm atum 2019 mucc sutura tawféex ak i xéewal ni ko Serigne Touba binde woon tawil la naa umra naa saxiix la naa badana wa hëb la naa rushda wa tawfiq yàlla salaamaaleykum sëñ Mbacke Fall caméraman Dakaractu Touba ñu ngi leen di ñaanal atum jàmm atum xéewal naataange ñu sax baawaan Dakaractu ñu jàppandoo jëm ca kanam Jagendev. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ousmane Sarr, cameraman monteur Dakar Actu. Eh, di am mbégte eh, di leen gërëm di leen sant yang ñi nga xam ne yéen ay internet Dakar Actu lëkkaloog Touba Actu fii ci di leen eh, ñaanal jàmm ci at ñu bees bi nga xam ne ñu ngi koy dugg wér-gu-yaram di leen wax ne euh, des leen di suivre seen site Dakaractu waaye bu leen fàtte tamit Toubactu ndax li leen soxal ci xibaar fii lay jóge jaa ngeen jëf